asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar lii ak laa biira la goo xam ne maa ngi koy jëmee ci sama bopp ak mbokki jullit yëpp rawatina mbokki jigéen ci ay mbir yoo xam ne dañ koy faral di def te baaxoon lool ñu xam ca atteb lislaam bala ko def sëriñ bi nee na araam na ci mukallaf mu jëf-jëf te xamut atteb jëf jooju bokk na ci yooyu li ñuy wax émail euh, di matière boo xam ne dañ koy taf ci wet loolu araam na ci ab julit mu di ko def ndax saa bu jul bi émailloo bu jàpp jote du jàppee njàpp mu baaxut bu ko sangu farata waree bu sangoo cangaayal du baax ndax foofu émail bi tëdd daa waroon tooy te may matière la buy dox diggante ndox mi ak waay li ñuy tuddee xaayil la te bokk na ci charte yi tax ak laab wér xaayil bañ a am diggante yaram wi ak ndox mi ba ci kuy liggéey ci peinture sax peinture boobu taq ci yaram wi da ko war a xos ba mu set wicc bu dee jàpp mbaa muy sangu farata wala kuy bind yor daa joo xam day far tafu ci kaw yaram wi fu tafu rek bu fekkee Eh, dafay des wow fa ba nga xam ne nii boo raxasoon foofa loolu dox diggante yaram wa ak ndox ma su boobaa loolu cangaay la du baax bu dee njàpp njàpp mu baaxul kon émail yi loolu moo tax mu araam ci ab jullit mu di ko jëfandikoo lu dul ne day def saabu julli jotee mu xoos ko saa bu waree jàpp rek xoos ko mu set bu waree sang xos ko xëy na su nag duñ mën a wax ne araam na ci wet googu donte it mbir la moo xam ne nuuru nuuru lu njurut jullit la te loolu it dëggam ci ñi baaxoo def loolu duñu ay jullit te ñooñu nag duñu suñu royukaay loolu nag bokkut ak fuddan moom du matière waaye aw mela la woo xam ne day feeñ ci wew yi mbaa feeñ ci der wi moo tax fuddanu dagan waaye émaa yi nag daganul loolu bokk jullit yi nañ ko bokk na ci yooyu ba poosé ay xef ak ay dañ koy tere dafa xaram ci ab jullit muy poosé ay xef ndax soppi bindub yàlla la yàlla bindal nit ci xef mel ne da koo xeeb bëgg yeneen ñaareel ba jokk ko kawar la ndax xef kawar la te li ci def lu koy jokk la yonent bi alayhi na nee na yàlla rëbboon na kuy jokk ak kawar ak ku koy naka noonu ay we ba tey sopp bindub yàlla la loolu da def xaram ci ab julit muy poosé ay we bi ci des it moom itam li ñu waxoon ci amay lañ ci wax am na nuñ koy poosé fa tëdd foofa du tooy mukk booy jàpp du tooy booy sangu du tooy kon nit ki day taqoo ak sobe waxtu ne sobe na ci moom bu jullee julli ga du baax mbokk mi laaj nee na ndax dagan na góor di fuddan baaraamam ndax nee na daa gis mu koy def fuddandi bu dee ngir faju dagan na góor def ko bu dee ngir faju waaye bu dee ngir taaru nag fii ci senegal moom xamuñ fi góor buy fuddoon te loolu nag min ziinati nisaa xanaa yi jigéen ñi taaroo ci la bokk te góor guy nuru nuru jigéen nag yàlla di ko rëbb ci la am yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bu dee ngir faju la xam na xeeti ay sedd ak yooyu xam nañ ne fuddan fuddan ko faj su boobaa fuddan dagan na ndax faju waaye def ko ngir taaru moom loolu mbirum jigéen la li war mooy bàyyee ko jigéen ñi wallahu taala